ñu ba nga xam ne dafa ñëpp jeex na ba nga xam ne gis na léppam kumpaam jeex na faatu rekk ci des mboolem nooy nooy woon yëpp dañ ko koy won lu mu ci mas a def mu gis ko lu mu ci bàyyi woon mu widd nga xam ne ko perte mu gis ko lu ñuy ab safaan mu gis ko te boobaa dañuy tëj buntu tub du mën tubati bu duggee ci bàmmeelam it ba ñaari malaayika yi ñëw li ñuy njëkk seet ci mbiram mooy julli julli yi lépp baax na bu baaxul dara du baax am na ñu bari ci ñu nit yàlla yu yàgg yi ñu gis si gént te nit yàlla leen di gis laaj leen seen mbir nañ def seen bàmmeel nañ def leen suñu borom waajal xanaa seen julli ba seen jaamu yàlla yi nangam nangam ñi ci ëpp dañuy wax ne noonu li jaay ko woor ak julli yi julli yi juróom ak nangam yépp bi mu noppee yi wiñ ci amoon yàgg ñu fi yàgg tax na jeex na te bis penc jotagut lan rek lañ dese mooy julli guddi ñaar ak njëriñ julli guddi moom lañ dee si tuyaabaam di ci dund ba nag waaye yeneen yu baax yi jaa def jihaad lu baax lépp jeex na ba loolu lañ dese. julli guddi moom julli guddi moom mii nag li muy bari bari tuyaaba dañuy wax ne boo jullee ak ci ca jàkka ja jullee ko ca mbooloo ma am nga xaaju jaamu yàlla fanaane julli ba bët ba ba xaaju guddi gi xaaju guddi gi fanaane koo julli boo gi da ngaa jullee fajar ca jàkka ji am nga ngëneelul fanaanee julli mm-hmm. ci ci loolu nga am mm-hmm. yonent bi waxaat ne li gën a gaaw a xam leen ab naafiq ak ku dul naafiq mooy mën a bañ julli ji ak bañu julli ji fajar mm-hmm. dafa diis si am naafiq mu def ko kon nag ku ne naxool boppam kon ne julli gée ci mbooloo mi di la të julli fajar di të doo ko def benn yoon bay ba nga seetaat sa bopp balaa malaayika yi seet nga seetaat sa bopp xam ne ab naafiq ku mm-hmm. yàlla dimbali ba nga mën a fonk yooyu nag mën ngaa tam def jot sa bopp sa sëñ bi daana wax ne li tax julli gën a rëy ci suñu borom jaamu yàlla yëpp nee na jaamu yàlla bu ne suñu borom daa yebal jibril jox ko yonent ba mu des julli nee na julli moom kenn da ko seddu yi da ko wool boppam ba mu ñëw mu joxal ko ko bopp maanaam mu daa wax ne jullit bu dégg ak nodd dafa war a mel ne borom kër bu dégg ñu ne tàgg jaa ngi man nag maa ngi soññ sama bopp di soññ ñi ma ko